boobu yegguñu ànd ak bi nga xamante ne bi ko gars ci ay département la nekk wala ñu nekk ci ay communes yoo xam ne jotuñu fa woon mën a jaar malgré seen mobilisation ak malgré yéene gu ñu amoon pour ñoom ñu fekkee ko. ma wax ne rek maa ngi dogu allah ñoom ñooy nekk priorité ci man en président de la république pour samay première visite. ma bëggoon jaajëfal bu baax les alliés de la coalition Diomaye Président foog naa ne gisee les hommes et les femmes de valeur. qui nous accompagne dans la course à la présidentielle de 2024. ngeen xam ne qui nous sont mûrs que par le projet qu'on porte te ñu bokk koog ñoom mu doon Sénégal def Sénégal nekk un projet un pays souverain juste prospère dans une Afrique en progrès. ñu di leen wax ne rek dañuy defal une spéciale. au président Ousmane Sonko ma bëggoon ngeen tàccul ko ndax président Ousmane Sonko a fait preuve de générosité ñun dañoo waxoon ne mooy suñu plan A mooy suñu plan B ba plan Z bu ñu gars yi doon kan mooy seen plan A dañ koy wax Ousmane Sonko kan mooy seen plan B dañ ko doon wax Sonko Ousmane. kon bu ñu toppoon ci loolu tamit ba élection weesu amuñu candidat dañuy jàpp ne rek dañ ñoo ëpp dooleel waaye kon kenn du am lu ñu wax waaye président Ousmane Sonko comme ni ko waxee sànq dafa mos jàpp ne projet lañ leen présenté projet lañ leen jaay et ce projet dépasse nos propres personnes c'est quelque chose qui tourne au-dessus de nous parce que c'est quelque chose qui intimement lié au Sénégal. de fine stratégie kuy xool un fin stratège politique kuy xool un génie politique bul wër fu sori waaxul ba ci président Ousmane nga jàpp ko. il a su faire preuve d'élévation personnelle de mettre le Sénégal au-dessus de tous et au-dessus de tout te loolu moo tax tey projet bi am candidat. loolu moo doonal tey ñu teew fii tey yëpp teewal projet boobu nga xamante ne mooy projet bu ñu leen jaay mooy le projet patriotique ma bëggoon rek wax ne élection présidentielle bii ñu dëgmal gannaaw suba dafa ne élection bi sénégalais yi di tànnee d'abord entre la rupture et la continuité est dañoo bëgg a li fi nekkoon wala dañoo bëgg a changer changement buy sopp Sénégal abadan daayiman bu nekkee lu ñu gis ci ñaari at yii tax ñu bari ci yéen dem kaso ay seen xarit yu bari daw génn dëkk ba ba dee fekk leen ci ñu bari am ay gaañu gaañu ñu bari wàcc liggéey bu dee continuité boobu ngeen bëgg dem leen wëri feneen waaye bu dee ngeen di seet mën naa leen garantir ne que j'incarne parfaitement cette rupture que nous recherchons et que nous appelons de tous nos voeux. Sénégal je veux vous dire pour la fonction de président de la République que je suis prêt.

Je suis prêt à pour la réconciliation des cœurs et à la concorde nationale. Sénégal dafa jot ñu juboowaale ko boppam juboole waale waak sénégalais yi seen diggante bu dee loolu la pare naa ci bu dee réhabilité je suis prêt à m'engager à la dignité économique de tous les Sénégalais et à lutter pour éradiquer la pauvreté au Sénégal pare na pour delloowaat sénégalais yi seeni ngor ci koom-koom ba ku nekk foo nekk sa wërsëg fekk na fa ba ku nekk non sori sori ñu ñëpp bokk ñëpp jot ci je suis prêt à lutter contre la corruption à tous les niveaux pour que les ressources nationales soient exclusivement orientées vers la satisfaction des besoins de nos compatriotes yéen sénégalais yi laay waxal pare naa pour xeex ak ger gi nga xamante ne law na ci Sénégal pour que li nga xamante ne mooy alalu askan wi delloowaat ci askan wi li nga xamante ne ñëpp ko bokk di jëriñ ñëpp je suis prêt mettre les jeunes au cœur des politiques de développement en mettant en priorité leur formation et l'appui à l'entrepreneuriat dafa jot ñu gunge ndaw ñi jàppalewaat leen former jàppalewaat leen ñu mën a samp seen yëfu bopp mën a liggéey mën a teral seen bopp teral seen i waajur je suis prêt à soutenir efficacement les femmes dans les de l'éducation de la santé de l'accès aux ressources de, de lutter contre les violences sur le genre pare naa pour jàppale jigéen yi gunge leen ci formation gunge leen ci faj leen gunge leen ci ñu mën a defar seen bopp mën a moom seen bopp mën a amal seen koom-koomu bopp ba pare défendre leen ci lépp loo xamante ne ay nooteel ak xokkatal boo xamante ne dégg leen ko tëj Je suis prêt à développer et à moderniser les secteurs économiques clés l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, le tourisme, la culture, les transports et kon pare naa pour développer Sénégal pour suqalewaat Sénégal te loolu yéen ñii laa ko fas yéene defee ak doomu Sénégal yépp ñi nga xamante ne ñu ngi fii ñu ngi dans la ñu ngi dans la te bëgg a ñëw jëriñaat Sénégal jëriñaat Sénégalais yi je a veiller particulièrement à la sécurité interne et à la sécurité à ses frontières pour faire du slogan armée et nation une réalité de par l'implication de l'armée dans les programmes de mobilisation citoyenne et de construction des infrastructures sociales pour au bénéfice de la nation. Je suis prêt à réformer les institutions particulièrement la justice, et à mettre fin à l'hyperprésidentialisme et à appliquer pleinement les recommandations des assises nationales et de la commission nationale des réformes des institutions. dafa jot yoon dellusiwaat ci dëkk bi waaye dafa jot surtout yoonal sampu ci dëkk bi te amul benn président buy ñëwaat mën ko dëjëti ñaari at yi ñu weesu. ni nit ñi demee kaso bi yomb la lool te teguwul ci benn yoon loolu lañu bëgg mu jeex ci réew mi je suis prêt à poursuivre notre coopération avec les partenaires du Sénégal sur une base gagnant-gagnant parce que nañu wéyal jokkalante gu ñu am ak bitim réew waaye ci loo xamante ne ci intérêt Sénégal ak intérêt sénégalais yi kese lañ koy lal dina jeex sénégalais yi toog am seen ressource ni yéen yàlla xéewalee ay nit jóg jéggaane ñëw fii war yaan si di jël ressource naturelle yi di ko jël di ko yóbbu pour seen njëriñu askan wi je suis prêt à raffermir les avec les pays frères du Sahel et à travailler à leur retour dans la famille CEDEAO xam ngeen ne ni Mali ni Burkina ni Niger ñu ngi commencé di sori lii di CEDEAO lii di UEMOA te ñuy suñuy mbokk di suñuy frère di suñoo xamante ne yàlla moo moo ñu leen tànnal ñu bokk ak ay frontière ñooñu dinaa liggéey en tant président de la république li ma mën pour ñu delluwaat leen ci biir ñu xam ne dañu am seen place ak seen rôle dans la communauté africaine. Je suis prêt à faire de justice sociale envers les personnes vivant avec un handicap déedéet jot ñu jàppale xam na xamante ne yàlla def leen natoo way laago ñu jàppale leen ñu mën a am accès à des emplois ñu mën a defaraat ay yeneen institution yu bees bu wees INAFJA ñu am fu ñu leen di former bu ñu leen former ba pare ñu gunge leen pour ñu mën a liggéey waaye ñu jàppale leen ba ñu am accès gratuit di di di faju dans les structures te duñu fay dara waaye et je m'engage à être un président de la République qui soit le de tous les Sénégalais un président debout et déterminé à assurer la stabilité du Sénégal dans la concordance et la concertation permanente afin que le Sénégal continue à inspirer dans une Afrique en pare naa pour dem président wu buy tëddee njaaxaanaay ci dëkk boo xamante ne dootul am ku mu am ndey ak ku mu amul ndey waaye doon président boo xam ne ni place Sénégal ci biir Afrique ni Sénégal doo waree doon royukaay ci biir Afrique da koy taxawee ba mu mat sëkk je suis prêt enfin à être le président porteur de l'espoir que voyez en nous et que pour cet espoir-là ne soit jamais trahi mbokk yi xam leen ne Bassirou Diomaye Diakhar nii taxaw seen kanam bu mu leen waxee ne damay déclarer sama patrimoine foog naa ne balaa ngeen doon ñëw fii jàkkaarloog man ku ne gis na lu am nekk ma président boo xam ne dafa sàcc luubal jaar fa ko neex ba ñu fal mu ne am na ay milliards xam ngeen sama biir xam ngeen sama biti gis sama sikkim gis ngeen samay soxla ngeen sama alal ñu toll kon bu mu falee doo am mbetteel ci man gis ci lenn nag je suis transparent et je suis un président qui entend promouvoir transparence ak man lépp day set lépp leen bu ngeen bëggee président bu leen di wor mukk fal leen ma je ne vous jamais je suis président intègre je suis président juste je suis président boo xam Sénégal moo dee ci xolam Sénégalais yi ñoo ko jaral lu ne te Sénégalais yi ñoo koy jaral mu am taxawaay gu ne asalaamaaleykum wa rahmatulah vive le Sénégal vive la